pour que tu aies. Macky Sall mu nguur que comment. mais jëlaat ko manam Amadou Ba parce que c'est comme si Macky est en train d'organiser les conditions de de de l'élection de Amadou Ba parce que tay comme ni ma c'est évident parce que y moy directeur de campagne mais directeur de camp mais directeur de campagne ça va un président sortant je pense que dafa war a dem noppal il a mieux à faire. Hmm. tey après la présidence il y a une vie am na dund boo xamante ne ngi ci ginnaaw président tey jii nii yaa ngi dund yaa ngi dund ci pression durant fukki at ak ñaar. jàpp nañ ne il est le temps nga mën a tal sa njaboot. il est hmm. temps tey jii nii Obama ci lan nga leen di dégg. dinañ hmm. génn président de euh, rôle président de la république après ñeneen dañuy dem dugaat ci ci ay direction de campagne. mais ça va bu nit la ko xamante wax dëgg yàlla euh, dafa jël la charge du pays avec responsabilité. Mm. mu ci jël chaque jour des décisions difficiles kooku non lu muy yakamti rek mooy mo mën a euh ci njëkk ak teranga charge bi ni mo mën jël sama retraite présidentielle. donc fum mu ne nii mom dafa war dem noppalu. président Macky Sall dëkk bi ñu dénk ko ñoo xamante wax euh, euh, le destin de ce pays là ñu ko fi nga mënu ko ñu ñi ngi peut-être président euh, le président de l'Assemblée nationale aussi à son retour exactement est-ce que vous nga ak Amadou Ba une fois président de la République. Voilà Macky Sall Macky Sall. président de la président de la République mu def Macky Sall euh, le président de l'Assemblée nationale. non non, non, man xalaat boobu non, non bokk ma je pense pas que euh, Macky Sall dina nangu jóge président. de la République si ba pour être président de l'Assemblée nationale pour être président de l'Assemblée nationale. alors man li ma gën gis peut être peut être la sax la ça c'est pas c' pas trop certain. Hmm. Moi, que ni moom tey jii bu demee ba Amadou Ba gagné il se il se la joue à la Poutine manam tek fi ko xamanteni il gère le pays pendant 5 ans le temps que yow euh sa compte remettre à zéro manam nga mën a ñëwaat donc légalement yone may na nga mën nga mën nga mën déposer sa candidature bo gagner donc c'est comme si sa compte mu ngi à zéro. alors donc peut-être que mon probabilité boobu noonu la gën gis que euh, Macky Sall euh, président de l' assemblée nationale. alors euh, aujourd'hui euh, ki nga xam ne que moo di Cheikh Tidiane Koulibaly yeen dossier mo nek en urgence di ko xaar si table li nga xam ne que moo di Sénat jamono ci bon Sénat jamono ji ni mu ci contestation yu bari parce que déjà gis nga amna ko amna kuñ fi jëli won ndiir parce que pourquoi dafa joxe woon benn avis favorable. Hmm. ci euh, réintégration Ousmane Sonko ci liste électorale yi. Hmm. yoon la yoon may nako sax mom mu wax ko mais bo xolé sax mom ci wax la yem dafa ne nañ ko def. Hmm. manam xalat la joxe def len ko. te te te su ko ci ànd naa ci décision justice mais entreprendre ben action mais à cause de Khalatam, ni jeli ko donc Macky Sall dafa arrangé ou andi fi déjà il était à la retraite. Mm. donc andi fi koo xamante ne jàpp nañ ni suba def précédent defoon Nako. parce que démb maa ngi ko yo wax yow ki tax nga tok fi moy parce que dañu dak kële. kële liñ mm. ko daké yow bonio boo ñëwaatee fii exactement ni ko dang top koy top donc ce qui veut dire que ki dañ ko Coulibaly dañ ko andi pour qu'il fasse un boulot différent de son précédent. différent c'est-à-dire. boulot différent de son précédent son précédent dafa nekkoon ci euh, di prêcher que ni Ousmane Sonko dafa war a bokkaat ci. Euh, notre euh, électorale alors mon hmm. son boulot différent c'est de faire. de son de sa possibilité mu def lépp loo xamante ne mu def lépp loo xamante pouvoir pour que son bañ cee beaucoup la lecture elle est simple donc aujourd'hui il est venu comme une comme comme un missionnaire nga oui, c'est un missionnaire en quelque sorte. Parce que Taïdini, c'est un vieux qui, qui, se repose tranquillement. Donc on l'a dérangé de son sommet. Ni vient nous faire ce boulot-là. Donc je pense que rien ne l'empêche euh, de le faire. D'autant plus que c'est le frère d'Abdoulatif Koulibaly. Abdoulatif Koulibaly. Abdoulatif Koulibaly, ça. Hmm. il fait partie des conseils de Macky Sall. Ok. Il y a déjà impartialité, ça. Il imposé. Mm. Taïdini, bon, est juge qui, dans telles circonstances, par exemple, s'il était juge hmm. d'une affaire qui oppose son euh, gouvernement, avocat Sonko, a une possibilité. Mm. Euh, juge. Voilà, juge. C'est comme ce qui s'est passé à Julien Ok. Voilà, donc euh, je pense que dans les conditions d'une impartialité s'installent donc japp na ni mom ki nga xam que moo di euh, euh, Koulibaly li koy xaas saa na bokk na mu daal di réglé de manière définitive li nga xam que moo les fiches à Ousmane Sonko est ce que concrètement yaa si am yaakaar suñu jappé ni mom il est venu comme un missionnaire alors euh, est ce que concrètement yaa am yaakaar que ni ki nga xam que moo le juge yam ak si même ligne ak li nga xam ne que moo di justement Doudou Ndir waaye itam leneen est ce que ñom su ñëwee dañuy recommencer waat liggéey bi wala kon dañuy amal li nga xam ne benn que euh, poursuivre li armes connaissent déjà stable parce que les next si déjà Sénat ça connaît déjà de à Ousmane Sonko alors le est-ce que day wala kon day à zéro bon administration mon continuité continuité si on donc. administration continuité d'abord ci que nga est ce que déjà mon de à c'est une même mom xam na ni Sénat duko num nu sax euh Sénat duko jox fiche de parrainage moom xam na ko maanaam wax deug te yalla tax quoi. ok c'est-à-dire yenn saay euh, je pense que moom dafa nek ci ben posture wan opinion nationale ak opinion internationale ni que voici le vrai visage de Macky Sall. day mettre devant le responsabilité mais objectif bi du retirer fiche de parrainage parce que xam na ni déjà c'est impossible parce que ñi fi nek sa waay Macky Sall mo leen fi teg d'une duñ fi def dara loo xamante ne Macky Sall mm. santaane ko mm. te beneen risque bi même bu demoon sax bañ jox ko fiche de parrainage man mal la ko wax tey gars yi dinañ def possibilité ba tax ni fiche bi buñ ko duñ mm, donc je pense que euh, la question de fiches de parrainage nañ ko jox Ousmane Sonko man c'est une question bi nga xamante ne man moom espoir maintenant quant à la quant à la continuité je pense que administration continue continuité la te boo Sénat je présent euh, de la conception de l'organisation de la décision de l'exécution jusqu'à l'inscription euh, sur les listes électorales hmm. donc boo madame maanaam ci wàllum conception moom ci wàllum conception élection madame ci BNB. bi ba fi dire, mon il est sur toutes les lignes hmm. donc ce qui veut dire que Sénat bi tout le temps hmm. donc euh, déjà y a beaucoup ni conceptualiser déjà ça a commencé na parce que les travaux pour euh, tenir élection février 2004 déjà c'est en cours donc mon bu est day gën a day day dem mise à jour lañ donc il continue son travail. Hmm. alors donc mi non chers téléspectateurs euh, par rapport à li que xam ne moo di Sénat donc Sénat fi fait euh, tout à l'heure il a fait leen par rapport à ce li nga xam élection yi nga xam ni ni 2024 donc à la dernière minute j'appelle leen dit li nga xam une très bonne nouvelle peut-être Ousmane Sonko non loko dit gars di vu que ni et bi bien accès mi précipité li nga que euh, sa prestation de serment alors ce que prêté que ma xamné ne jox de li que modifie fiche en tout cas. Hmm,

Euh, défier euh, la justice par rapport à euh, décision bi nga tam aussi la décision de son supérieur de qui Sénat. voilà donc xam nga déjà anomalie bu re mu ci dimension hmm. parce que déjà Sénat mom ay mu ko Sénat na e e, ce qui veut dire que Sénat mën na joxe fiche de parrainage ci li ayib dafay wax donc Sénat bu mënee jox fils de parrainage parce qu'il y avait trop de risques parce que tamit li ñu mënta wax rek euh, gars ils agissent tous en pression kenn bëggul jël risque Moi, le Sénat joxe wut mais dafa digle pour ñu joxe moo ko DGE mais DGE tamit dafa nekk direction générale des élections tamit dafa nekk ci le ministère de l'Intérieur. Hmm. alors que ministre de l'Intérieur, bon, bon ministre de l'Intérieur, la bi nga xamante dañ koo nommé donc lii mooy premier défi am bi mu fi ba euh, li mo nek premier défi am. Sidiki Kaba Sidiki Kaba. Hmm. alors tay bu faté ni ministère de l'intérieur mom mo jël arrêté génne Ousmane Sonko euh, ci liste électorale Antoine Félix diom Antoine Félix diom donc mm-hmm. ministère bee ko def. Mm-hmm. donc dafa mel ni mm-hmm. dañuy santaane ministère bi mu delluwaat ci décision bi nga xamante ni moom moo ko xam nga bu décision de justice la manam juge bi mo né Sonko tout. ci ay droits civiques hmm. su boba dañuy japp ne justice mo diglé ministère bi dafa nekk dafa donc justice waxat na ministère day retirer. Hmm. mais décision ministère la en amou justice mo ñeu ne ko sa décision baxul Donc aussi koy saytuwaat nga wat ki ni ci hmm. liste bi hmm. donc ya direction générale des élections tamit mënul def dara luddul def li nga xamantene mom leen le euh, supérieur bi digle supérieur moy kan ministère de l'intérieur qui agit sur le compte du président donc c'est ça le problème donc aujourd'hui déjà euh, japp na ni posture bi nga xamni tam fa la daal di taxawee dafa obligé euh, ministre de l'intérieur ñëw nii Ousmane Sonko ñëwaat na ci li nga xamné ko yi. man maa la wax li ni déjà yow suba suba suba bu joxe fiche de parrainage Ousmane Sonko ñu fa nekk ci ko bu ci suuf ñëpp lañu dakk dàq kenn du fa des. ñëpp lañu dakk dàq kenn du fa des. ils peuvent pas parce que tay, ils sont sous tutelle de ministère de l'intérieur. donc ñoom dañuy agir par pression par menace. ñoom ñëpp ils agissent sous des ordres parce que du DG moo gagné Ousmane Sonko. Hmm. li ko génnee mooy patron moi Antoine Félix Djom, ministère de l'Intérieur nous avons décidé de retirer Ousmane Sonko donc euh, décision d'acceptation ou bien de de réintégration Ousmane Sonko tamit ñoom ñoo on jël. donc DG dafa melni ben benn muscle bu fi nekk muscle ah, bi le ah. cerveau c'est le hmm. ministère et le hmm. président et le palais. le DG ce n'est qu'un muscle là-bas ils réfléchissent lui ne fait qu'agir mais malgré les décisions de la justice malgré Sénat malgré tout DGE mom euh daal mu déglu li nga xam que modi le ministre de l'intérieur intérieur. xam wax rek c'est c'est un peu comique. mais Antoine dafa mel ni comme peut être euh, jaxase lepp bala mo dem de franchement. Ah, mom déjà démarche Macky Sall moy lay jaxase sax ay ministres dañuy réer déjà imagine-toi un président sûrement du xam à quel pied danser. imagine-toi un président de la république nit nek ci contrôle judiciaire warul hmm. génne ci réew mi yow nga dugal ko sa avion di ko génne ci réew mi def na imaginez-vous imaginez-vous aussi yow ni dem ci élection. Hmm. élection présidentielle alors que première condition moi, que ne ak koo munti doon da nga war a ñëw ak sa carte d'électeur présenté wu voté. Macky Sall yóbbuwul carte d'électeur ñi laaj ko ko mu ne joxewul carte d'identité donc non la voter sans pièce d'identité ni rien alors que foofu nous mënoon na ko def ça parce que les caméras étaient braquées sur mm. lui donc mm. ne serait-ce que ça donner ben exemple mais defu ko Macky Sall gis nga euh semaine bi ni mun na fi ay nit yo xamantene ne waru ko def yon téré nako mu def ko donc exemple yooyu buñ koy cité du jeex donc ko xamantene ne def na ben def na ñaar def na ñett lu lan mo koy téré mu defat donc ñom je pense que lool mo fi nek ñom ils ont agi pour des fins xoolal rek radiation Ousmane Sonko